tolloo ah, lépp a ngi tolloo ah. aca kon yi nag defe naa ne comme niñ ko defe woon démb rek olof a ko wax ceer ku fóotal mbët roccil bar démb ñu ngoon parcelle heure bi tey ñu ngi fii ci géeju Pikine fekk fi kan le grand champion Sokh ku ne xam ne dimanche 19 juin 2022 benn lamba am benn événement am ak jàmbaar production Sokh Fara Sokh ñu ngi lay bëggee Sokh sa dugub waaw jaajëf Babacar maa leen di fay di wax onze bila bisimilah ina waali yàlla onze bila bisimilah ina waali yàlla jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul maa ngi santaat suma yaay bu baax a baax a baax di santaat suma yaay bu baax di ko santaat bu baax di ko ñaanal gudd fan ak wér gu yaram di ñaanal suma sëriñ suma wasila sëñ Abdou Karim Mbacke borom Makaarimal Axlaa di ñaanal suma baay suma baay Murit Mbay maa ngi koy ñaanal gudd fan ak wér gu yaram ak tawféex di ko ñaanal képp kuy taalibe Serigne Touba di ñaanal taalibe seex yëpp di ñaan képp kuy taalibe seex man sox maa ngi lay tàllal suma loxo nga ñaanal ma ci bis di woo ci combat bi waa Axlu Bayti resul gépp képp kuy taalibe baay Ñas man sox maa ngi lay woo ci combat di woo Laayeen yi di woo ñaseen yëg ñëpp maa ngi leen di woo ci combat bi di sant waa daar Musti waa Daaru Musti maa leen di sant bu baax a baax a baax a baax di jiital nuyoo bi ci suma kilifa suma xarit muy sëñ Seexuna sëñ Seexuna maa ngi lay siyaar bu baax di nuyu jëwrin yi nekk biir kër sëñ Abdou Karim yëpp maa ngi leen di bëggee di leen ñaanal tawféex di ñaanal waa Pikine di wax Sénégal yàlla na fi jàmm yàgg di ñaanal ñëpp ñi làqu nag ñëpp ñi nekkoon ci làmb daan def lii ñuy def tey suñu borom jël leen maa ngi leen di ñaanal suuf sedd seen kaw ku ci mel ni Papa Yade Zil Balde Junior xam nga suñu grand Moussa Dioum tey bu ñuy lim fii la ñuy fanaan ndax tey bëri na ñoo xam ne tey ñu ngi woon ak ñun ci làmb tey mooy loolu ay Moussa Balla Gaye ñoom ñëpp suñu xelang ci ñoom ndax ay icône ñëpp parce que ñoom ñëpp xam nga ñun ñoo bokkoon nekk ci lii ñu nekk nii ñuy ay xale ñuy ay xale tey suñu borom jël leen bañu fi dañ leen di ñaanal rek loolu lañ mën te yàlla na leen yàlla xaare aljana ci barki yonent bi waaw soq loolu nga wax yàlla na yàlla nangu ñaani barki yonent bi sallallahu alayhi wasallam yàlla yi jéggal ñëpp ku faatu soq sa digganteeg franc fi mu nekk nii moom defe naa ne wax ji bëri na trop trop waaye nag wax wax waxat du war bëri wax leeral ay wax la. Mhm. defe naa ne dégg nga ko la mu waxoon ca la sax saa su ne. Mhm. maanaam 30 secondes yi moom du ko génn ak yow. foofu parce que foofu la ñuy commencé boo ci ñëwulee fa la lay fekk te bu la fa fekk moom 30 secondes am xajut ci yow. waaye Franc bu ko yaay waxoon dëgg sa ah bokk nangul leen ko ko. gis nga ah ko bañal loolu ci bokk. Babacar avant avant may tontu ci question boobu sax. waaw dafa am message bu ndaw rek bu may lancé Franc. mooy ban. Franc man du jaxase katu nit. du wax katu lu ñaaw. yaakaar naa kenn mësuma dégg ci média ma wax lu ma kenn di xeebee wala ma wax loo xam ne bu ko nit déggee bàyyi doomu aadama bi juste dañ doon wax ci biir ay wax nga réer ma lay recadrer mais waxuma pour jaxase laa kenn ndax baat boobu ba tey yaa ngi ciy insister naan ay soq dafa ma bëgg a jaxaseeg sénégalais dafa ma bëgg a jaxaseeg waa Pikine man kenn mësuma dégg ma tudd Modou Lo wax ci moom lu ma war ta wax wala Papa Sow wala ñi la mag nekk ci sa ginnaaw daa am noo waxee woon ci Eumeu Sène ma recadrer la combat bi du combat Modou du combat Eumeu Sène du combat Papa Sow man ak yow ñooy bëre ñooy dugg ci digg géew bi man tey billaahi wallaahi bu ma sañoon daan la rek laay sekk ak yow du ma la waxal lenn loo xam ne nit da koy dégg di la xeeb pour nga dellu ginnaaw ci loolu ngay wax man aw ma pour jaxase la kenn parfois nit day juum ci communication li la dal mun na ma dal man comprendre nga mais waxuma ko pour jaxase la kenn hmm. bis bi ñuy bëre man ak yow moo toll noonu te li ngay wax yëpp maa ngi koy dégg man kenn ñoruma yow yaa ma ñor te suñu bëree ba pare ngay xam ne yow yaa ma ñor kenn ñoruma barki maam Serap Fall. incha allah. parce que nag ma ne ko yaa tudd léegi Modou Lo ñu dugg ci ceer parce que Modou dem ci ay waxam fukki combat la wax mënu ci daan franc moom gis-gis boobu la amee. waaw non. Modou Lo xaar ba gën ci Ama Baldé moom mi daw nay ko moom mi daw combat bi. dina bokk de gaara nangul leen ko ko de. xaar ba gën ci combat bi moom mi daw combat bi. dañuy wax. waaw dina bokk de gars yi. dina bokk. waaw gars yi aca gaan. Modou Lo loolu mu wax noonu. c'est très normal. lim sentir rek la wax ah. parce que xëy na dafa làq poulain am dóor poulain jàmbur. Hmm. mais loolu du dara lool bu ko waxee loolu garaawul amul problème moom champion la tey franc raqam la man raqam la waroon na mën a généraliser rek wax qualité franc wax qualité sok ndax wax sa mbaax waay wàññiwul dara ci sa ndax bu dee benn kele mën naa ko ci lamb comprendre nga dee benn kele la mun naa ko ci lamb bu dee benn combat sampion daan naa champion. kon tey waroon na ma mun a nangul loolu mais su taxawee tey ni Franc bu bëreeg soq dix combat Franc da koy daan lépp te Franc nekk suma morom am lu mu def ci làmb ma am lu ma def ci làmb Franc di entraîner may entraîner loolu bu ko waxee damay jàpp ne daa làkk poulain moom rek dóor poulain jàmbur mais amul problème loolu dara moom ni mu waxee noonu déranger wu ma suma grand frère la te champion la maa ngi koy ñaanal jàmm suñu borom defal ko jàmm lool rek laa ciy wax. mais pourtant Eumeu Sène waxal na la léegi de ndax Eumeu Sène fii taxaw léegi koy dégg mu ne yaa yaa fu franc wax na ko fi léegi de. waaw amul problème moom it daa làkk poulain am dóor poulain jàmbur rek. ah loolu du dara li wér te wóor mooy Sokh ak Franc ñooy bëree wax dëgg fa neex yàlla Eh. waa parcelle yëpp génn nañ nekk ci ginnaaw Franc maa ngi déglu suñu père Ndiouga ak ñoom ñëpp ku ci nekk dégg naa ni waaw ku ci nekk dégg naa dégg naa ni mu waxee ay soq bu daanee Franc Franc na dem jaayi tiir Casamance garaawul amul problème parce que xam nga lu tax moom i tamit suñu père la waroon naa mun a rafetal rek ndax ñun ñaar ñëpp ay doomam lañ ndax man fu ma ko gis dama naan ko père xam na ma xam naa ko bu baax j'ai beaucoup de respect pour lui mais nag amul problème suma papa la loolu du dara sa passe man li wér te wóor mooy. waaw wallaahi wax yooyu yëpp dégg naa ko mais Franc moo ma ñor. kese. mais mais confiance bi ngay dégager et puis ni nga ñu xoo Franc ñeme ko di ko affronter communication do ko may jàmm seen premier jàkkaarloo defe naa Lamine mais moo ko doon présenté. keroog da nga koo ko dara fu ngeen daje da koy jege attaqué ko dal ko. Babacar waaw. combat bii may bëri nii moment bii ma toll nii. yàlla dafa dogal rek mu tombeek Franc mais su tombé woon ak Modou Lo moomu doon wax sax Modou Lo moomu doon wax démb. su tombé woon ak moment bii ma toll nii ci làmb. waaw war a bëri ak moom du ko yóbbu. du ko yóbbu ah du ko yóbbu ma rey la man. du ko yóbbu. wax nga de. gis nga ñoom. waaw ñoom. waaw ku ci nekk tolloon nga moment bii nii pour nekk champion ci làmb. waaw muy Modou Lo. waaw di Eumeu Sène. di Boy Niang di Gris Bordeaux. di Balla Gaye 2. ñoom ñëpp ku ci nekk tolloon na moment bii nii ci làmb pour nekk champion don xale entraîné ni ñi xam ne entraîné na mu ñëw war a jëli ci bis bii nii pour nekk champion. Ah. kon man bu ma ci tollee tey mu leer ma ne tey lii ma gis nii Pikine waay taxaw. teg seen bakkan ci soog ah ma war a bëre bis boobu noonu. wallaahi bu ma sañoon dañuy pousse franc ma Modou Lo moom la 19. Modou Lo barki maam Serafal. jamono jii mun naa bëri ku ne ci làmb. yàlla daa dogal mu tombeek Franc rek te suma morom la nawloo naa ko trop ndax champion la fu ma toog dama koy wax interview yi ñu wax yëpp interview yi ñu wax yëpp dégg ngeen dama koy jox cër bi mu moom jox ko dayo bi mu moom waxal ko doon champion bi mu doon champion kon awma lenn lu may sous-estimer si Franc moom kay mooy sous-estimé soq nangulul soq dara mais bu ñu bëree le 19 man ak moom ba pare man xam naa ne li yàlla di xam nag yàlla moo xam kii kii am ndam man yoruma ndam wax naa ko sumay supporters yëpp garanti lu ma kenn ndam ndax xaw ma fu ndam ne waaye li wér te wóor mooy bis bu ma ci dugusee dinaa indi jom indi fulla indi doole ju wér indi bëgg combat bi bu neexee yàlla ak yonent bi. léegi Babacar dañuy taxaw ci Modou Lo. parce que soo xoolee Franc dafa ne dina ko may 30 secondes. bu ñëwul mu tàkk ci kawam mais dem Modou Lo nee na 30 sax bari na 15 secondes sax combat bi mën na fa jeexee. waaw ah, mais mooy limay wax rek xam nga loolu waxu mbër la rek ndax bataille psychologique am na am na ci làmb mais damani man soq laa wax. xam nga Modou Lo moo confirmé waat ni cinq secondes. quinze quinze secondes la wax déglu ma ko 15 la wax dama bisu le 19 juin bisu le 19 juin laa wax bu ma simmee bu ma feccee ba arène national bi neex fecc ba amateur yëg yëg seen bopp ma dem toog sama ruq ni tekk ba simmeeku jot ma simmeeku waaw dongali Franc wan ma ginnaaw ma daw romb ko ndox mi tis laal ko mu gesu xool ma dina xam ne kii du ku daan ci sogon waaw lu ma jaaxal sox naam da nga am combat di ko respecté ci def li ci war mais bi da cee raw pourquoi sa diggante Franc bi raw ci préparation combat yi nga préparé waaw mais dama ko ko wax keroog ci signature bi te li ma wax nëbbu ma ko man lamb bu ma ci defoon lu ci war du ma bëreeg ci lamb hmm. bu ma defoon li war ci lamb teel jox lamb gëddëm kon heure bi du ma bëreeg Franc ci làmb mais man dama doon jàpp làmb di ko foowee ñii xam nañ li ma wax ñi ma dëkkal xam nañ ma xam nañ ci li ma doon dox dama doon xëy taxawalu dëkk bi yëpp bëre jot ma ñëw takk sama sër dugal mbër top 5 demaat sama yoon nekkaat ci beneen rythme talu ma woon sax lamb man làmb daf ma dab man damaa judd mën a bëre di ko foowee gars yi di pratiquer làmb may bëre di ko foowee di dem di ànd ak samay gars di xam nga di dem doxi samay parcours comprendre nga suñ demee nag ba ma toog ba gis tey bu ma amee combat ni ñu duñ nelaw comprendre nga ni ñu duñ nelaw guddi duñ nelaw bëccëg kon man war naa mën a wane exemple boo xam ni tey ñi nekk sama ginnaaw duñ ma gën a gore te xale laa xale bu nit ñu amee ci moom yaakaar góorgóorlu moo ko war waaw te maa ngi góorgóorlu bu baax li may def nii nii nii nii ak li may wax nii barki maam Seera Fall du lu ma mën du sama njàmbaarte damay góorgóorlu rek yàlla suñu borom moo may kàttanal xëy na ma dugg ci mbir mu yomb man loolu laa jàpp ak suma gëm-gëm te loolu laa gëm te moom laay wéyee. keroog dëgg naa sa biir wax nga di ko wax nga ne ko li ngay wax ni gëmoo parce que buñ làqoon ci rox doo ko doo doo waxee ak man nii. bés bés loolu ban genre wax la bés wax la nii rek wala pour. non non non non loolu. waaw loolu. ma wax Franc noonu. waaw ñi ma xam dëgg. waaw man soq ñi ma xam dëgg. xam nañ li may wax. waaw dëgg la wala du dëgg ñi xam Franc xam Sokh waaw xam nañ li may wax ndax dëgg la wala du dëgg bu ngeen wéetee man man Babacar naa la wax naa la xamal leen nga xam ko de. waaw gaan gaay waaw waaw waaw. gis nga. Babacar xëy na xëy fii ñu ko defee nii sax. gars oh, oh, oh. ñu ko defee nii gars yi dañoo xër rek. liñ fi bëgg a wax lépp mënuñu ko fee wax. mais dama bëgg Franc mu xam ni. ñi xam Franc xam Sokh wallahi li may wax Franc xam nañ ni dëgg la. mais Franc moom mun nay semblant ci caméra yi nii wax ak def yëf. Hmm. li muy bañ a dégg ci ay noppam. man parcelle dama fa fooyee def fa lu nekk. am fa mafia bu wow. kon yëpp dañ koy ma am fay am di jàmm man parcelle ba tey ba sànq dama fay dugg comme ni ma neexee di génnaat man waxuma pour jaxase kenn ak kenn waaye sama am di jàmm fu mu nekk ci àdduna ma fekk ko fa kenn du ma wutal sens interdit ci àdduna. te Babacar ma wax la leen benn affaire nga xam ko de man taalibi Sëriñ Tuubaa laa de du ma waxantu de barki maam Serap Fall lu ma wax dama koo gëm te lu ma narul du ma ko wax Franc bu la 19 juin dina jëflante ba xam ni moom jëflante na. mais xeex bi ngay dox di wax est ce que xeex bi da nga koy wax nii pour naxaate wala pour nax ko daan ko wala. ban naxaate maag Franc ku nax ku a nax sa morom daanu. ah dama dégg ngay waxoo xeex dem ardu dikkaat. dama ni man ak moom ku jéem a nax sa morom daanu. damaa xam ni combat bii nii moo nekkul combat boo xam ni combat bu ñuy nekk fii di wax naan ay c'est-à-dire kii day déplacé wu jaar ci falan wu kii. combat bi ki ka gën a bëgg ëpp fulla ak fayda moo ci am ndam. a ah. léegi euh, Babacar li a jaaxal mooy que Franc nee ndax Sokh pare na ndax ñeme na pour teg reliquat am. waaw waaw moom day. non loolu waxi mbër la rek xam nga yooyu sax détail yooyu noonu maanaam mbër ñun fi ñu toll ci suñu niveau fu mu toll ci làmb dañoo war a sax dépasser communication boobu ndax tey boo nee boo ay boo boo ay ay ay ay reliquat xam nga ay teg reliquat loolu waxu caaxaan la. man bañ naa ko ba sama numéro laa ko jox plainte plainte face to face lañ def maak moom Instagram ma wax ko sama numéro ni ko bu fekkente ni teg rek nga bëgg woo ma ci numéro boobu moo disponible loolu jarul ay reliquat parce que tey am na foo xam ne mënoo fa teg sa reliquat parce que reliquat dañ koy yóbbu CNG déposé ko fa nekkul yow mbër mi yaa koy bëgg a jël rek dem jëli ko te heure jëli ko jotul maanaam bu fekke bëgg na teg moom xam na fu muy jaar pour teg ndax mbamb yaa ngi si ginnaaw barke maam Serafal <laughs> léegi looy wax fi ñuy jeexale mooy Pikine wala ah aca ah, waa Modou na gaaw rek moom tam muy gaaw nag Franc nee na mosul neex la moom daan leen ma tuuti rek dong laa moom muy ñaanal ko wér ak tan ba mu bëreeg fils de Balla loolu laa koy ñaanal loolu dong laa koy ñaanal li mu wax nag am na droit ndax moom ak Franc ñooy ànd ñooy nelawandoo nit ki tamit booy nelawandoog moom di tëddandoog moom ak a jóg bu la neexee booy wax ci adversaire am nga waxee nu mu la neexee ndax loolu nga loolu nga ko yéene comprendre nga loolu man duma ci focaliser wu man li ma wax dafa leer te dama bëgg ngeen koy déglu dama ni man kii ma jël avance am war a bëre ak moom moo ma ñor défi bi may xaar foofu noonu xoolal gis nga parfois li may wax làmb day tombeek parfois day tombeek benn at say adversaire nekk ci benn secteur parfois sa làmb day gë wëlbatiku waay wala sa làmb wëlbatiku faas wala sa làmb wëlbatiku pikin comprend nga loolu day am ci làmb loolu noonu c'est le ndax boobu xale bi may bëreeg ñooñu boobu ñooñu bëre na ñoog samay grand frère ba sonn mooy doog a ñëw bëre ak ñoom suñu borom may leen ndam ci sama kaw Franc fi may bëreek moom moo ma neex ndax fi may bëreek moom dama màgg xam nan laak naka la miin biir géew bi ñeme ko ba romb koo ñeme. foofu laa bëreeg Franc man moo tax sama combat ak Franc neex ma. mais ay laay Pythagore bi may bëreeg ñoom dañ may jàpp may wi ñaaru di përiyee ka def yëf. comprendre nga boobu xale laa pour man spectacle mooy bëre mais jamono ji damaa parewul pour may nit dara ci làmb ñu ci bañul bañu ma ko ci. am na solo. koy wane Baba Diaw bu moom waa Pikine bi moom loolu moom. xaaral xaaral xaaral bi moom. gaynde ndànk waay. soqa bëri non combat bi moom combat bi comme ni ma ko waxee woon rek jarul sax kenn di insister ci ay affaire mobilisation wala kenn di ko jooy dama ni combat bi du combat fans club combat amateur la combat adduna la du combat fans club wala combat waa Pikine wala combat waa Parcelles combat bi àdduna yëpp moom la ñuy waxtaanee am na ñoo xam ne barki maam Serap Fall ñu ngi waaj pour dagg seen billet Europe ñibbisi pour ñëw seetaan si Sokh ak Franc loolu yaakaar naa ren ci combat bii nii la ko yàlla tombel Sokh ak Franc combat Sokh bu mel ni comprendre nga ak waa jàmbaar comprendre nga xam nga lu may wax combat bii nii bu ci kenn jooy mobilisation ndax Franc ñàkkul ñu nekk ci ginnaawam yéen a ko wax muy ñoom père lu luñ ci def doyul hmm. parce que tey na leen wóor ni man sumay papa yi nekk suma ginnaaw ay ñoom père de ñoom Pape Diop Boson ñoom Abdou Bakhoum comprendre ñoom Aliou Ba ñoom Père Bourkhane ñoom ñëpp def délégation dem fëgg Ablaye Timbo këram mu ibbi ñu ne ko hé doomu Pikine bi moo xewle te dafa jot tuuram daa jot dem fëggi Isaaxa Diop dem fëggi monsieur le maire Ablaye Diop bu ginaaraay ñu ne déet ñu dem fëggi Amadou Jara ñu dem fëggi tey ay Pape Gorgui Ndong ay Rama Maki ay Oumy Sy tey ñoom ñëpp amuñu jàmm ay Pape Abou Cissé tey man woowu ma leen de Pikine waayu ñoo doxal seen bopp dem fëggi leen job social bi Grand Yoff rek kooku suma kilifa la kooku rek moom actuellement nii pare na pour jëndal ma dix bolok bokkul ak jàppale bi ma jàppale ci combat bi yëkkati otom jox ma. kon lamb ji dana neex. référence Sénégal nag Doro Gueye kooku référence la ci Sénégal. PDC moo ma wool boppam téléphone. ni ma man yaay sama mbër kenn nga ci man mbër yi dañ fiy ñëw ma leen di jàppale mais yaay sama mbër te bis bii lépp lu ci war dinaa ko def Doro gay maa ngi koy sant bu baax a baax a baax di woo Gofay suma grand la suma xarit la borom parcelle comprendre ko ay ñoom Demba Demba Souare ñoom ñëpp maa leen di woo ci combat bi ay Ablaye Gueye Laye Gueye xam nga frère la ci dooro ay ñoom Zano ñoom ñëpp maa leen di woo suma goro yëpp maa leen di woo ci combat di woo waa Pikine yëpp yëpp yëpp beneen bi maa ngi woo waa Casamance bu baax suma waa dëkk waa Kabrousse waa Jembereng waa ñaalu waa Kër Xëy comprendre nga ñëpp maa ngi leen di woo ci combat bi comprendre nga di woo suma mbokk looro looro yëpp maa ngi leen di woo ci combat bi ndax sumay xarit lañ sumay lépp lañ di woo suma mbok séeréer yëpp il bi maa ngi leen di woo bu baax surtout maa waa Falia